Nouvelle tentative euh, pour Knowledge euh, Moussona. De l'autre côté, le capitaine euh, du Zimbabwe qui va essayer de trouver l'une des grandes tailles des Warriors et des défenseurs centraux qui sont montés. Tinet Chadebe, Gérald euh, Takwala. comme ni nga gisee ñoo ngi Zimbabwe ba léegi 0-0 waaye gis ngeen euh, suñu mbokk yoo xam ne ba léegi ñoo ngi toog di concentré wu ne yàlla fu mu toll nii moom di benn dalu parce que xam na ne Sénégal mooy favori CAN bi fu mu toll nii 78e minute mu kii Zimbabwe euh, sëñ bi dafa mel ne yaa ngi concentré si match bi ah waaw. noo gisee match bi fu mu toll nii. ah match bi instant yii nii moom naru yomb moom parce que gars yi moom normalement instant yii man moom li ma gis moom na gars yi gën a def effort pour mun a dugal quoi. instant ba découragé woo yow. non découragé wu ma maa a couragé rek. pour am yaakaar moom balaa moom muy jeex moom am benn bi. Uh-huh. waaw. incha allah noo gisee instant yii moom bi. non instant te gars yi xaw nañ xaw a taxaw waa xam naa ne moom lu si des gars yi entraîneur moo koy mën a mottali si biir. waaw gis ngeen li ngeen sunu waay gis ngeen concentration bu am bi sëñ bi tur bi naka la. waaw Ibrahima Ndiaye. Ibrahima noo moom am nañ courage moom gagné moom waaw benn rek. loo loo jàpp ne instant moo manqué équipe bi fu mu toll nii. manqué na si moom wax fa dëgg yàlla manqué manqué na si de waaw su suñu milieu bi sax. a gagné ah, moom. Ah. incha allah bu neexee yàlla. merci beaucoup. on était dans la phase de préparation. nouveau changement avec euh, Boulaïdia qui va sortir. Remplacé par Pape Gay, de terrain de l'Olympique de Marseille. Ça va, ça va, bonne concentration, bonne concentration. Bonne concentration. Assalamu alaikum sëñ bi. waay salaam. sëñ bi tur naka la. man euh, Balde laa tudd. Balde tey noo gisee match bi fu mu toll nii. macha allah. match bi serré na waaye ñu ngi ñaan yàlla may Sénégal ndam incha allah. lu jàpp ne instant yii moo manqué ndax parce que ñoo ngi 10 minutes rek moo des match bi jeex te ba léegi 0-0. waaw xam nga heure bi c'est pas facile xam nga sport dafa am réalité boo xoolee da xam ne vraiment suñ premier match la il faut au fil du temps ñu gën a adapté wu quoi. waaw mais quand dina ñëw incha allah. mais gis nga match bi fu mu toll nii après ba motul Guinée lañ am te Guinée ba motul fu mu toll nii euh, équipe boobu moo moo gën a euh, mën a football kii di Zimbabwe est-ce doon loo xam ne dina difficile suñu trop trop trop. c'est vrai aussi que li nga wax am na parce que match bi au moins ba mënoon nañ profiter euh, comme premier match la c'est jouable xam nga mais léegi amul équipe bu ndaw. équipe léegi équipe bu ndaw amatul. réalité réalité Coupe d'Afrique c'est autre chose. donc euh, bu ñu fi yàlla dimbalee ñu am fi ndam mën nañu yombal lu bëri. Hmm. bon mais peut-être euh, match deuxième match bi dina fekk retour yi am ñu jot am Covid ñu gën a rétablir yàlla baax na. merci beaucoup merci jërëjëf. mbokku internet yu Wassare TV ñu ngi leen ñoo ngi fii si monument de la renaissance lu ñu fi indi tey mooy match Sénégal ak Zimbabwe coupe d' Afrique des euh, Sénégal nar a jokkoog tey kii Zimbabwe waaye fu mu toll nii moom match bi nee Sénégal yëpp a stressé wu parce que ñëpp xamoon na ni lii Sénégal moo nekk favori CAN 2021 waaye fu mu toll nii dafa nekk match ak Zimbabwe te des si ay simili pour match bi jeex sax euh, daanaka bëriwul lu si wax ni temps Euh, ñu bëri lañ am déception waaye tamit peut-être absence am parce boo xoolee kii di Koulibaly kii di Edouard Mendy kii di Pape Makhtar am lii di Covid 19. peut waaye dafa mel ni am na occasion gis ngeen mbooloo bi ñëpp a ngi tëb euh, waaye nag peut-être yàlla baax na peut ñu ne waa Guinée incha allahu rabi euh, peut Sénégal dina am na waaye match bi moom xam naa ne moom ba motul ñoo ngi si euh, match nul lañuy def lañuy jël lañuy après ça ñëw dugg si kooku mbooloo moo xam ne ñoo fi teew nekk ñu taalal suñu ko laaj la rek lan nga gisee équipe bi tey merci beaucoup à tout à Zoboué qui dit s'être protégé avec les mains. Attention, attention, attention. dina gagné. ah. est ce que yaakaar nga ne tey ah! na nii lay demee. fier de lui. Ah merci. maaleykum salaam grand. noo gisee match kontaan nañu wax dëgg yàlla match bi mënoon na gën a kii sax mais Covid bi ak ni mu demee joueur bëre blessé affaire demee noonu mais comme que gagné nañ ndam noo ko amee baax na. mais est naa ne fu mu gën a saa yaakaar nga ne tey Sénégal dina def match nul. waaw tey moom loolu laa yaakaaroon ndax wax dëgg yàlla mbal bi fi nga ko amee fee temps mais changement bi baax na quoi waaw affaire daal nii la waroon na mën a ndam ni nga ko baax na kom li ma waxoon. am na ndam looy wax looy wax sunu sunu joueur international notre Sadio Mané. waaw Sadio moom. lii la waroon def am nañ ndax lii la lii mooy liggéeyam daal lii la waroon def te suñu penalty dóor ko mu dugg comme ni mu ko daan defee comme que tey dóor na ko dugg na alhamdulilah dañuy sant yàlla daal. merci beaucoup merci beaucoup Kara jaajëf frère. kontaan bég nee naa leen ñoddi bu dagul dikk daf leen ndànk Sénégal teel a kii ko nañ def ndànk rek te lii di ngeen ñëwaat fii ngeen fi ngeen ngeen di feetu see kii bi final bi ah. incha allah fii waaw. mais est-ce bi wala dina def match nii. musuma musuma ko yaakaar loolu musuma si koo yaakaar xam naa ne Sénégal day gagné lu ñu manque am manquement ay jours dañuy gagné parce que jom bi la ah xanaa kontaan daal di ñëwaale rek indaale bii bi kontaan ñu leen di ñaanal nag lii yàlla na leen jik affaire yi gën a sori ba ñu dem ba jël coupe bi nag sonn nañ de. tey sa sa yaakaaroon tey di Sénégal dina def machine yi. non non dama xalaatoon victoire nag day am depuis démb laa def sama déguisement daas fanaana toog di xaar xëy secteur heures du matin defaat nii. da nga ñëw dugg ah oh, nii de la demee ah ah déedéet bu ne kii na pour sama interview. non non non non non non bokkuñu ko bu fi indi loolu. ci man la déggee loolu. pas du tout. man maa ñëw man maa ñëw. man maa ñëw li tax waa léegi la ma buux ko. man maa ñëw Matar Diop suba teel ne ma. comme ñëw nga xanaa léegi bii bi dugg. ma ne ko maa indaale bii bi. mais ñu def 30 secondes ñu am maa indi bii maa indi bii bi ma xoolal amul sa drapeau amul sa bu wér. noo dundee tey match bi. Ah, kontaan rek ah kontaan naa ah. parce que ndam moom nu mu mënti mel ndam la rek. waaw bëgg nañ trop waaw. est-ce que yaakaaroon woon tey jii Sénégal day def match nul. waaw man boo dama foogoon dañuy nul ah. ma góor sax sama copain maa ngi doon parier moom naan ko mu naan ma 1-0 maan ko match nul la kaa ñu parier. waaw mais yàlla def na li gën quoi. ñu ngi ñaan loolu jàppoon tey jii moo manqué woon si équipe bañ doon def lii match nul. bon man analyse bi def bu ndaw la mooy je trouve que ni Sénégal dañoo am ay joueurs mais ñu équipe. joueur la ñu am effectif mais amuñu équipe parce que tey joueurs yi ñu am joueur gënu leen si kaan bi mais équipe entente la équipe déggoo la loolu moo ñu dese man quoi. mais sa yaakaaroon tey maanaam jour yi eh, absence absence yu moo taxoon lii am. waaw joué ci ah absence yi du ma wax déet joué na ci bu baax mais tamit il faut que ñu am comme la ñu amoon 2002 mooy entente bi déggoo bi quoi loolu la ko manqué déggoo waaw. merci beaucoup <laughs> <laughs> mais boo ko xam ne sportif la salaamaaleykum. bu mag waaw sportif de renommée international de ko ci yokk. mais siyaar naa leen maa leen siyaar waa Wasaare. waaw waa Dakar News waaw bëggee naa leen bu baax. Euh, noo gisee tey match bi. bëgg kontaan noo def yow. sando waaw waaw man kay fecc naa fecc yu bëri. waaw ñëpp a ñëpp kontaan ndax wax dëgg yàlla sa dëkk di football am ci ndam ci première match am. dafa neex parce que lii moom li ñuy ñaan yàlla mu to rek daal mu was mu wasaaroo bien. <laughs> mais est-ce que am na benn boo xam ne soo yaakaaroon te du Sénégal peut euh, sama gars yi dama nekkoon man leen man daal fekk arbitre bi neewul fin du match jàpp naa ne bii dana dugg te neewoon naa ne la mënu ñàkk moom. xanaa xanaa yow mbokk selbe ko. non non non non non jusque samay maam dañoo yóbbuwul lépp am fi bàyyil. <laughs> <laughs> mais est-ce que yaakaaroon tey match bi mu demee nii peut-être yu absent yu am moo tax lu si mel ni Edouard mel ni ni rek moo lay wane kon bu tib tib bi ñëwee kon kon kenn duñ taxaw ñoom comprendre nga ay kal Koulibaly yeeg yooyu yëpp gars yi buñ ñëwee sàppe yi jub ni mu war jubee kon duñ taxaw kenn nañu wax ne dëgg mais quelque soit ak nu mu métti métti ak gars yi Covid yeeg yooyu yëpp dëgg la mais gars yi mujj nañ koo réglé ñaan yàlla ñoom ñoom ñu jug ci jàmm te ñëw nag ñëw ci liggéey bi waaw léegi match match prochaine incha euh, mooy contre euh, kii di Guinée incha allah le vendredi loolu noo ko gisee match incha allahu rabbi de gañe nañu moom dañuy gagné. waaw dañuy gañee ndax dañuy yëg-yëg boobu lañu war a mën a am quoi mënuñoo am beneen yëg-yëg tamit nag wax dëggal te am nañ effectif bi war a tax ñu ne ñu gëm ni war nañ mën a gagné. looloo ci nekk dañu am effectif bi war bi nga xam ne war nañoo gëm ni war nañoo mën a gagné mais c'est effectif maanaam am équipe moo ko gën parce que tey bu ñuy xool la Sénégal yu bëri wax mooy Sénégal individualité yi moo ëpp moo tax moo ñu créé problème yi. waaw looloo tax war a tax nag fi mu toll nii yëpp tey bu ñu paree bi ci boppam war naa a xoolaat moom li mu war a li mu war a taxawlaatee sa pays xam parce que waroo yor tey tim bu mel nii entre Zimbabwe équipe la comme yeneen équipe yëpp mais waruñu woon taañaa ñal moom ba moment bii quoi wax dëgg yàlla di def jàpp moon jàppoon naa ay 3 4 sax na war ko fi mën a am mais vu que nii la demee nii la ko suñu borom dogalee alhamdulilah moom li mu li ñu ñuy gagné rek moom daal gagné laa man gagné. mais Sadio Mané tey moom ñu bëri ba match bi mu mu tegee plante bi parce que euh, dañ tàmbaloon di dafa xam ne samay maam ñu lépp daam la ma def ca godaas yi penalti yi fi ndool maa ko lijjanti kon boog na kon jotuñu def si benn set. non non non non penalti yi maa moom maa ko lijjanti dama ne woon moom c'est fini moom kenn moom fu mu ko amati noxo teg. mais merci beaucoup kontaan mais naa ne waa bëggee waa Wassare TV ak bëggee waa Dakar Midi waa ñoom ñëpp maa leen di bëggee di leen siyaar di leen wax nag ñu xaar mat vendredi. Mm, bu après ndam bi rek ñu waxaat incha allah. c'est le Sénégal qui gagne mbokk internautes yu Wassare Sport gis nga ñëwoon si nañ sànq maa doon génnee ba may dugg ne leen match Sénégal ba mos dee match nul waa je me suis le Sénégal ak gagné bi marqué par Sadio Mané notre international Sadio Mané doomu Bambali boobu mais tey noo gisee match bi Fall. waaw mais tey match bi euh, metti woon na lool lool ak euh, vie ak sunu manquant yi euh, kii moo ñu gën a handicapé quoi ak Covid 19 bi ak yenn yenn yenn yenn tamit aléa si match bi. moo tax euh, Lions yi mënuñu woon joxe à 100 pour cent vu que ñu si bëri tam ñu ngi ñu ngi soog a euh, football lii di compétition internationale muy CAN. loolu moo taxoon xaw a manqué tuuti tuuti tuuti si jeu bi mais à la fin gis nañ ne euh, le Sénégal a gagné lala la ñuy retenir le Sénégal a gagné pas avec la manière mais trois points daal mu ngi si suñu boo loolu moo nekkoon essentiel te xam naa ni deuxième match bi dañ gën a gis beneen xar Sénégal fekk ñun suñu manquant ay ñoom Famara Diédhiou ay Kalidou Koulibaly ak yenn ñi manqué woon a ñëw rejoindre équipe bi ñu mën a amaat ndam contre euh, la Guinée. mais comme comme ni ko waxee yaakaaru c'est à 100 pour cent ñoom tamit day ñëwaat parce que match bi bis des ba motu fii ak 4 jours lañ def wala kii di Guinée est-ce que yaakaar a ñëwaat ak yaakaar nga ni lii a gagné dina mën a gagné lii di waa je pense que dina mën a gagné Guinée parce que tey jii nii premier match moom noonu la nii lay demee à chaque fois chaque chaque jour day nekk difficulté mais difficulté bi na nekk dans le bon sens ah, ñu mën a gagné. Euh, ak ak ak ak bu baax nga xam ne Sénégal moo jël première euh, si si classement mondial chaque jour dafa war a wane boppam. mais gis naa ni duñ fekkee euh, ñii nga xam ne absenté nañ comme ni ma ko limee woon sànq ñëw nañ ci deuxième match bi contre Guinée dañu am beneen score bu gën a baax dañu am dañu gis beneen xarkanamu xarkanamu Sénégal parce que Sénégal instant bi nii même du amee même du dóoree nii 1-0 ci fin match bi amul benn benn maanaam. jeu bi daal mu ngi fii daal amélioration moo si des Aliou Cissé gën a euh, gën a euh, équipe bi ñu xool na la ñuy a xool combinaison bu gën pour mën a jël ndam li bii di ñëw. c'est l'internet yu Wassare Sport tey lii lay indiloon fii si monument de la Renaissance ñu ngi sànq fi ñëwoon Sénégal kii gagne. encore une fois merci beaucoup Sadio Mané waaye tamit merci beaucoup à toute l'équipe parce que ñoom ñëpp a doon football mais grâce à Sadio Mané mu dugal si waaw 92e minute sax maximum comme ni ko waxee si la Sadio Mané daal dugal lii di planti Sénégal gagné kii di Zimbabwe alhamdulilah encore une fois sànq samay début di wa samay début mooy maanaam ma tuddee match nul parce que boobu su desoon matuwoo sax 10 minutes donc tey jii Sénégal daal di gagné Zimbabwe mu doon loo xam ne peut-être dañu may beneen sens pour ñu daal di euh, préparer suñu prochaine match contre Guinée waaye tamit comme que kan bi jeexagul chaque match match nekk day ci championnat européen parce que championnat européen si day espace boo fubalee bokkul ak fii kaan xam ne maanaam physiquement il faut nga taxaw en plus ak blessure yi amoon le kaaw kaaw Koulibaly kaaw Edouard Mendy kaaw Pape Makhtar Sarr Memphis Mendy ñoom ñëpp ñu absenté woon donc loolu tey peut être moo si woon waaye maa leen wax match ñëw contre Guinée premier temps 2-0 rendez vendredi incha allah